بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين tey mooy ñetteelu xaaj wala ñetteelu bind ci fàttali boobu nga xam ne ñu ngi ko doon def ci kayfa taqra'u abwaaba sama naka ngay def ba mën a fëgg bunti asamaan ba boo ñaanee sunu borom sunu borom nangul la ñun ñëpp xam nañ ni dañoo ñàkk dañoo soxlaal sunu borom sunu borom ni yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila allah yéen nit ñi yéen ñëpp da ngeen a ñàkk te da ngeen a soxlaal yàlla wallahu huwa alganiyu alxamid yàlla mooy ku am ki mooy ku man ki mooy kiy def xam ngeen ni ñaan ki koy def dafay am aajoom amaale tiyaaba waaye ki lànk bañ a ñaan loolu rek mën na koo jural alkande ëllëg sunu borom ni inna alladina yastakbiruna an ibadati sa yadxuluuna jahannama daaxirin ñi lànk di rëy rëylu bañ a ñaan yàlla mel ni ñoom dañoo am seen yëfi bopp sunu borom ni ëllëg bu nu faatu dama leen dugal sawara yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla day ku baax la ku bari kersa la ku am kersa la rus na moom sunu borom te loolu ci melokaan yi sunu borom saxal boppam la comme nañ ko saxalal comme inna allah la yastaxyi an yadriba mathalan ma baud fa fawqaha inna allah xayyun karim sunu borom rus na nit ki tàllal ko ay loxoom ñaan ko te du ko may kon boo ñaanee te mayuñu la rek jàppal ni ci yow la kon ñetteelu xaaj bi amaan na mu nekk mu jëntalub xaaj ci yennet ci ay mbir ginnaaw bu xaaj bu njëkk ba jàllee muy ay jumtukaay yoo xam ni nit ki bu ko jëfandikoo borom bi dina ko nangul ñaanam ñaareelu xaaj bi nekk ay misaal yoo xam ni làmb daj la ci nit ki ñaan borom bi nangul ko imaam ju mag ju ñuy wax muhammad ibnil munkadir muhammad ibnil munkadir moom ku ko xamut dégg na ko ci borom xam-xam yi fooree xeetu lislaam wi la bokk ñu mag ña nee na ci madina ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon benn poto poto ci poto jàkka ji boo xam ni léeg-léeg su ma jullee ba nopp foofu laay wéeru toog fa nee na benn bis ci am at tombeeg bekkoor am ci dëkk bi maanaam nit ñi daal di génn ñaan taw def baawu naan ba sonn te yàlla tawut mu ni ma julligee ba noppi toog ci jàkka ji wéeru ci benn poto ma jékki-jékki ba mu yàgg seen benn waay bu ñëw waa ji mi ngi ñuul kukk mooy xeesul comme ñoom ku ñuul la boo ko gisee mi ngi mi jeex tàkk mel ni koo xam daal amul solo lool mi ngi sàngoo benn sër boo xam ni daanaka amul solo lool jël benn kaala teg ko ci baat bi comme paa yi gis ngeen seen kaala yu xaw a mooy kaala yu rëy kaala yu xaw a gudd yi lëmas seen baat yi mu lëmas benn ci baatam nee na ma daal di koy gis mu ñëw ba ca kanamu poto ba ma nekk daal di taxaw julli ñaari ràkka bi mu paree daal di tàllal ay loxoom muy ñaan sunu borom mu ni yow yàlla ñi dëkk ci sa dëkk bi yonent bi day dajaloo nañ tey di la ñaan taw te ba léegi tawagoo man nag maa ngi nii maa ñaan si tey nag te maa ngi giñ ci yow bëgguma fay jóge lu dul da ngaa tawal nit ñi Muhammad ibnil Munkadir nee na bi mu waxee loolu rek ma ne waaw kii bu ma yaakaar daa dof xanaa bo ah yow dëkk bi yaa fi gën a tuuti nit ñi niñ baree ñoom ñëpp ñaan nañ suñu borom suñu borom mayu leen yow nga ne fi naan bala ma fay jóge day taw nee na bi mu wàccee ay loxoom rek ma yërndu ci biti jàkka ji seen asamaan si di xiin ak dënn dama ne waaw kii moom mooy kan ah ma toog tuuti rek taw bi soo di taw di taw di sotti di reetati taw bu bari lool nee na ba mu yàgg ma seen waa ji yëkkatiwaat ay loxoom di sant yàlla mu sant yàlla ay baat yoo xam ni mu ne ah yàlla de nii de lii de samanin la yow yàlla lii moom samanin la yaa diggee woon yaa def yaa baax yaa maye nee na daal di jóg kaalawwaat continuer di julli ba fajar jot ci jàkka ji mu mel ni kon xëy na fa la fanaan ndax ginnaaw gee la woon nee na buñ jullee suba ba noppi ma ni xaaral kii dinaa jéem a xam mooy kan nee na comme taw bi daa baaw naan daa baawaan may xool waa ji anam ban buntu lay jaar ndeke waa ji génn wakos rek dem yoonam ma xaan xaani xool xool xaw ma fu waa ji jaar ma ne waa baax na comme xàmmee naa ko ba suba nee na ca suba sa ba ma jullee gee ba nag ma toogaat ca barab ba ma jekki-jekki rek seen waa ji ma ne waaw kay ki ma doon wër nga ko xaaral tey moom balaa moo dugg fenn dinaa ko xam nee na ma seen ku mu def nam defoon julli ñaan yàlla def la muy def ba noppi bi ma ko séenee mu ni bërët di jóge rek ma jóg topp ko bi ma ko toppee ma di ko séen mu jàdd ma jàdd mu duggat mu dugg koñ bi ma dugg ci benn koñ fu mu jaar rek ma topp ci ginnaawam ba séen ko mu dugg ci benn kër nee na ma marqué kër gi pour xàmmee ko pour bu subaa ma ñëw fa mu ne bi ma yeewoo suba ma daal di ñëw fekk waa ji ci biir kër gi ma nuyoo fekk benn waay bu ferankulaay ci digg ëtt bi ndeke uude la day defar ay daal waa ji xam na Muhammad ibn Munkadir Muhammad ibn Munkadir xamu ko ndax borom xam-xam daa yomba xam waa ji daal di bëreet jóg daal ni ko ya aba abdillah marhaban bismillah yow boo amee aajo ci man mënoo woon a wax naa ñëw est ce da ngaa bëgg ma defaral la ay xuf ay sang wala daal loo bëgg waxal loo soxla léegi ma defaral la ko ndax comme Muhammad borom xam-xam la woon ñu ormaalee ko loola Muhammad ibn Munkadir ni ko déedéet loolu taxumaa jóg de man kay suñu mbirum biig mee ma tax a jóg nee na bi mu nee suñu mbirum biig mi rek ma gis waa ji kanam gi commencé soppeeku mel ni ku mer xam ngeen ku mer ni kanamam di mel nee na ma xool ko kanam gi mer lool ma xam ni mer loo naa ko nee na ma roccee ko ndànk daal di ñibbi nee na bi ma ñibbee ca ñetteelu guddi ga ma ne ah naa bàyyi kon ba mu fekk ma jàkka ja kon ma xool lu ma ko def ma jéggalu nee na mbooloo mi dugg si ci jàkka ji may xool xool gisuma waa ji may xool gisuma waa ji mu ni ma ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun man lu xew mbaa du waa ji la ma ko wax moo ko teree julli si xaaral ba suba ma dem këram seetiwaat ko jéggalu ko nee na ma dugg ci kër gi xool gisuma dara ci kër gi ma laaj dëkkandoo yi dëkkandoo yi di ma waa yow sa waay loo ko wax démb mu ne lu xew ñu ne yow daal démb bi nga génnee xott der sax xott daal bu yàq sax bàyyiwu ko ci kër gi lim am lépp la buub takk ko rek génn dem yoonam Muhammad nee na keroog laa mujjee xam fu waaj a nekk mu nit Madina ba mu daj kër për kër visite naa ko di xool ngir xam kan la nee na ba fii may wax ak yow waaj a mënu mën la mooy diw ndax toxu na ñaanam nangu na loolu danay wan ni kon nit ki bu dëggoo rek mu ñaan suñu borom suñu borom may ko waaye xoolal ñoom noonu ñu sellee woon vraiment ku mel nii mérité na mu ñaan yàlla mu may ko ndax bu doon ñu ne da ngay bëgg a siiw ñu xam ni yow kat waa dëkk bi yëpp ñaan nañ nanguwul waaye yow yaa ñaan rek mu nangu waajalal takk ay bagaasam ay débat démam génn dëkk ba ngir bu ko kenn xam sellal gu mel noonu ku fa yegg jàpp naa ni jëf ju mel nii buñ la ko askanalee warta mën a jaaxal kenn ata as-Sulaymi nee na ca sun dëkk benn dañ bis dañ doon wala ata ibnu ubayda as-Sulaymi noonu mooy tur bi dëgg ci borom xam-xam yi jàmbaar yi la bokkoon nee na dañ doon baawu naan ñu romb armeel ya fekk fa benn dof bu ñuy wax saadun nee na dof bi daal di may woo ni ma waaw allaaxira daa jot wala yàlla daa dekkal ñi nekkoon ci biir bàmmeel yi mu ne dof bi moo ko wax loolu mu ne ko allaaxira daa jot man bi mu séenee mbooloo mi tëb di ñëw rek dof bi mu ne ko allaaxira moo jot wala boog yàlla daa dekkal ñi nekkoon ci bàmmeel yi mu ne ko déedéet allaaxira taxawut yàlla dekkalu ñu ci bàmmeel mu ne ko loolu lu xew mu ne ko nit ñi dañoo ba bekkoor ñuy ñaan taw mu ne waaw yéen xol yi leen yàlla sàkkee ci kaw suuf ngeen di ñaanee taw wala boo ko ruu yoo xam ni ma nga lonk ca kaw asamaan sa ngeen di ñaanee taw kooku dof buy wax waxi nit la waxtaanee na ma ne ko ah ruu yu jokk ca asamaan sa kay la ñuy ñaanee taw mu ne ah waa kon kaay leen ma ñaanal leen moom dof bi mooy wax de mu ne kaay leen ma ñaanal leen bu njëkkoon nag dof yooyu bokkut ak dofi tey da ngay gis nit koo xamante ni nit ñee koy jàppee dof ndax day def jëfi dof ci biti nit ñi waaye du dof dof boo xam la mu bëgg la mu daal di yëkkati ay loxo mu ne yow suñu borom sa jaam ñi ñu ngi waaj a alku te seeni bàkkaar moo leen di alak yow nag sa xoro bu leen topp tawal leen boo leen tawalee du wàññi ci li nga yore dara te yow dara dala tëwut te boo leen tawalul day mel dara dala te yow suñu borom tawal leen gaaw léegi nee na waaje balaa muy yeggal rek taw bi commencé sóob nee na mu daal di taw ba tooy xepp mu daal di wax ay baat yu bare bare bare sant yàlla way ay way wane ne daal nit ki bu dëggoo sellal ci borom su ñaanee suñu borom may ko Zunnun al Misri moom it borom xam-xam bu mag la nee na bañ génnee ca Basra nee na di baawu naan ba mu yàgg rek benn waay doxee ma gannaaw rek ñu nikk sama tànk bi téye ma ne waaw kookan la mu ne mu ne man la saa saa doon dof bi mu ne ko waaw foo jëm mu ne ko damay dem ci jullikaay ba mu ne waaw xol bu fënëx jeex tàkk yàlla ngeen di ñaanee wala xol bu lonk ci asamaan mu ne ko xanaa xol bu lonk ci asamaan mu ne kon léegi yow da ngay ñaan may wax amin wala nga bàyyi ma man may ñaan nga wax amin zone noonu ni ko déedéet yow ñaanal yow moom ki ñu naan dof mu ne ko yow ñaanal man ma wax amin mu daal di yëkkati ay loxo mu ne yow sunu borom liñ séq biig liñ séq biig xam nga ko xam naa ko ca loolu laay sukkandiku nag di ñaan nga taw tawal waay sunu borom daal di gestu xool ndeyjoor gestu xool càmmoñ rek sëggaat taw bi commencé di wadd nee na bi mu taayee ba sewet ma jàpp ci loxo bi ne ko sawaay wax ma li ngeen séq biig yaag sa borom ne ko déet yow nag da ngaa sopp nag bul dugg ci lu sa yoon nekkul lan séq maag suñu borom rek ko séq demal sa yoon rek ma dem sama yoon taw nga doon ñaan yàlla tawal na la demal sa yoon ma dem sama yoon mu daal dem yoonam benn buur sarri ibni yaxya mooy nettali ne na benn buur ci buuri ceddo yi nee na dafa mas a dàq ay jullit ci jamono yañ doon xeex nee na mu di leen dàq di leen dàq ba jullit ñi yéeg ci kaw benn montagne mu ne waaw kay nag lii laa soxla woon comme ci montagne mi ngeen yéeg dana jël sama soldat si wër montagne bi ba kenn du am foo wàccee ma bàyyi leen foofa ngeen toog fa ba dee jot ngeen dee ma rey leen rey wu ñaaw ndax ñoom amoon nañ doole jooju boo taxawee ci montagne bi fii ba 6 mois ñoom mën nañoo taxaw di la xaar loolu mooy xisaar mooy wër ndomba mooy embargo comme ni ñu koy waxee ci waa àddina nee na bi loolu amee naaj wi di tàng tey suba ginnaaw suba boo gaa yi seen ndox mi jeex nee na ñu seen leen ñuy tàllal seeni loxo ci asamaan si di ñaan yàlla wàcceel leen ndox muñ naanee nee na ci saasa rek buur bi daal di seen taw bi di wàcc ci seen kaw ñuy taataan di naan buur bi daal ni ku yàlla may ndox may xool sama bët te kenn nettaliwuma ko kooku moom pare naa ci ay mbiram daal di wax gaa yi ne leen nan leen dem suñu yoon ñoom ñëpp ñu daal di dem lu mel noonu dal na Daxaak ibn Qays al-Fihri am na ñu wax Daxaak keneen la waala ko leen qissa bi rot na ci ay riwaayaat daal nee na dañu doon baawu naan mu ni ana Yazid ibn al-Aswad fekk Yazid ku nangu woon ñaan la ku ragal yàlla mi ngi ci biir mbooloo mi Yazid ni pat ni mi mi gaaral nangu la wax Daxaak fekk mu nekkoon gouverneur mu ni ana Yazid Yazid daal di noppi wuyuwul mu ni xam naa ko bu baax wóor damay day làqatu mi ngi ci mbooloo mi di ma dégg waaye na xam ni kilifaam laa su ma ko wooyee sañ na maa wuyu mu doog a xam ni kilifa bu la wooyee da ngaa war a wuyu mu daal di jóg daal ni man la bi mu jógee mi ngi sol benn mbaxana bu jóg ca kaw nee na mu daal ni ko ñaanalal nit ñi yàlla mu tawal leen Yazid daal di yëkkati ay loxoom ñaan yàlla taw rek mu daal di sóob te ñoom li gën a kéemaane mooy buñ doon ñaan ci saas amul sax ay dañ bàyyi ba suba day taw ca saasa amut xiin na amut xiinut amut war naa taw amut war ta taw dañuy ñaan rek suñu borom nangul leen ca saasa ndax seen ceellaay ga ah léegi nag ñu xëy suba boo duggee ci marché bi moom la ñuy waxtaane boo demee ci hôpital mooy bu doon jamono bii rek xam nga nit ñi dañoo gaaw ci loolu soo defee benn nangu ñaan rek nit ñi dañoo gaaw a yéemu dëkk bi siiw foo wëlbatiku nit ñi mooy ordre du jour bi moom la ñuy waxtaanee wax ji di tasaaroo ba yegg si ci daxaak daxaak daal di julli ñaari rakk tàllal loxoom yàlla mu ni yow sunu borom siiwal nga ma te man xam yàgg ngaa xam ne bëgguma siiw ñàkk a bëgg a siiw moo tax bañ may woowu yiwuma te fi mu ne nii siiw naa te siiw gi neexuma yow sunu borom lii nga faat ma ma jóge fi sax mu ma gënal siiw gi bis bi mu ko waxee balaa muy dellu si rek mu faatu ku yaakaar naa ku toll foofu ci sellal ak bañ say yëf nit ñi xam ko ak nit ñi xam ni ku baax nga ngay làqatoo ko jànni nit ñi ngir nëbbu sa digganteeg sa borom buñ la waxalee lu mel nii loolu la war a mën a nekk la Malik ibn Dinar nee na dañoo toogoon ab jamono taw amut ci Basra nee na ñu daal di génn di def baawu naan di sàkku ñaan ajib hada nee na man ma génn ak Ata as-Sulaymi ak Thabit al-Bunnaani ak Muhammad ibn Waasi ak Habib al-Farisi ak Salih al-Murri ñii ma lim ñëpp kenn ku ca nekk rek borom xam-xam bu mag nga woon kéemaanu sunu borom nga woon. nee na ñoom ñëpp ñu daal di génn tàllal seeni loxo ñaan yàlla ñaan ñaan ndeysaan taw ñëwut. nee na bañ fa toogee ñu rusa dellu ca kër ga benn waay daal di ñëw ab jaam bu ñuul mi ngi sew ay tànk biir baa ngi rëy maanaam boo nit koo xam ne boo xoolee melokaan bi sax da nga koy xeeb ndax xam nga nit ñi la dañuy natt ci ay jëmm ah diw kay moom boo ko xoolee tabaarkàlla nangam nangam fekk mbir yi la yonent boo xam ne yàlla du xool seen melokaan yi ak seen yére yi waaye yàlla mi ngi xool seen xol yi bari waa ne koo xam ne yaa ko gën a jekk yére gën koo jekk melokaan ci li nga gis fekk na buñ ko doon peese ca yàlla moom bu tolee nit une tonne yow yaa ngay toll daanaka genn wàll liibar nee na waa ji daal di yëkkati ay loxoom mun yow sunu borom nit ñaa ngi nii di la ñaan taw te mayoo leen te yow taw bi ngay génn ci sa magasin xéewal yi tawal leen ko du tax mu wàññeeku dara ca la nga amoon man nag li ma bëgg mooy xanaa di nga rus man mu ñàkk solo mi nga tawal leen nee na ñu ngi dégg waa ji di wax loolu rek taw bi daal di soob ah ma dégg waa ji di sant yàlla subhanahu wa taala mu ne ah yàlla de man xam naa ni bëgg nga ma nee na ma daal di ñëw jege si waa ji commencé di ko laaj ay laaj muy tontu ba ma laaj ko yow fan nga dëkk mu ne ko yow dangaa mën a laaj sax man damaa yàkkamte man ab jaam rek la diw mooy sama njaatige maa ngi dem nee na ma daal di koy topp di ko xool ba mu dugg ci benn kër ca suba sa ma ñëw ndekete waa jooju mu dugg këram jaaykatu jaam la dafa am ay jaam xam ngeen jaam lañu jàpp leen jaay nee na mu ñëw ci waa ji ni ko damaa soxla nga jaay ma benn jaam mu ne ko man kay am naa fi téeméeri jaam yu may jaay bu mu génne rek mu ne ko bëgguma bii fekk da doon xool kan la ana waa ji jaam bu mu génne rek mu ne ko bëgguma bii ku mu génne mu ne ko bëgguma bii ba waa ji génn mu ne ko kii laa bëgg nga jaay ma ko mu ne ko kii kay duma la ko jaay ku bon kii nga xam ni jooy rek la fi nekkee benn njariñ amaluma ko mu ne ko man bu dee jooy la moom laa bëgg jaay ma ko loo ma koy jaayee mu ne ko kii kay loo fay baax na xam nga jaay loo bëggul loo fay baax na wanteer la ko bi mu ko ko wanteeree mu ni ma ànd ak jaam bi daal di génn bi mu génnee jaam bi ni ko waa yow xanaa déggoo la sama njaatige wax sama njaatige ne la man awma benn njariñ jooy rek laa fi nekk loo gis ci man ba di ma jënd mu ne ko dama laa bëgg a jënd ngir buñ demee sama kër ma di la liggéeyal yow mu ne ko liggéeyal mu ne ko waaw mu ne ko lan nga gis ci ma ba dama liggéeyal mu ne ko da ngaa fen xàmmeewu ma la démb maa ngi fàttaliku sa ñaan gi jëlal gi nee na bi mu ne maa ngi fàttaliku sa ñaan gi de gis nga ñoom koo musaana dugg ci ay domaine am digganteem ak boromam rek mu wan la jikkoom ñun nag koo dugg ci mbiram digganteem ak boromam rek mu kontaan day saan defe ne loolu moo di mbaax fekk déedéet li nga séq ak sa borom waroo may nit ñi di ca dugg nee na bi loolu amee waa ji xam ne mi ngi bëgg a siiw mu ne ko may ma jàdd ci jàkka ji julli ñaar raak xam nga ñoom léeg-léeg te xam ngeen ni nit ki warul ñaan faatu waaye fitna bu ca nit ki tolloo ba gëm ni faatoo gën ca moom mën na ñàkk diine mën na ko ñaan suñu borom mu talal ay loxoom ni yàlla su fekkee damaa nar a siiw te dee gën ci man nga ray ma foofu la daal di tëdd ca jàkka ji rek dina law rek jaaree fa faatu kon ñoom dañ doon làq seeni jaamu yàlla ba mu yegg ci jaral leen faatu ali ibni abi xaraara nee na sama yaay dafa feebar ñaar fukki at dafa paralysé woon tànk yi mënta dox nee na benn bis mu ni doom ji waaw tee ngaa dem ci Ahmad ibn Hanbal mu ñaanal ma boog sama feebar bi wér nee na waa ji doom ji daal di ñëw ci Ahmad ibn Hanbal ni ko waaw sama yaay dafa feebar ñaar fukki at a ngi nii tànk yi mooy metti daa bëgg nga ñaanal ko imaam Ahmad daal di wiccax loxo bi ah sa yaay de daa baax rek waaye xam nga ni moom moo ñu gën a ragal yàlla moom kay bu ñaanee wax ay wax maam di jànni waate daal comme genre yooyu nit ñiy def pour bëgg ñu fàtte la waa ji nee na ma ni ah kii de du ko ñaanal xaaral ma dem sama yoon nee na bi may ñibbi rek benn maire daal di koy dab maire bi ni ko yow yaa doon wax wax ak Ahmad léegi mu ne ko waaw mu ne ko na sa xol dal xel sedd sa xol na sedd dégg naa ko bi nga déparé mi ngi tala ay loxom di ko ñaanal yàlla. Ali ibni Abi Xaraara mooy nettali nee na dama ñëw ba ci buntu kër gi fekk sama yaay mu jóg jóge ci nee bi ba ñëw moo tijji buntu bi ma dugg te toog na ñaar fukki at doxut. yaakaar naa ku àgg ci ceellaange foofu ak di làq say jaamu yàlla lu mel nii lu tuuti lay doon ci la nga xam ne moom la koy waxal defe naa xisab imam Bukhari moom jërut yàgg dégg ngeen ko xam ngeen ni imam Bukhari yaayam da doon ñaan yàlla am doom ba am doom da doon ñaan yàlla may ko doom bi ko yàlla mayee doom doom ji juddu bët yi muuru ëndaale wut bët muy jooy di ñaan yàlla di jooy di ñaan yàlla ba benn bis mu tëdd ba guddi gént yent yàlla ibrahim mu gis ko ci nelaw mu ne ko waaw looy jooy mu ne ko man kay tiis wi ma am mooy sama doom ji dut gis mu ne ko demal te nga xam ni ubbi ko nga xool yàlla delloo na ko ay bëtam nee na mu muri séer bi rek seen xale bi muy commencé di xool am na benn maire Hamad ibn Salama moo ko nettali nee na dama ñëw ci kër gi benn kër may génn ma gis benn maire buy wax naan yaa rafiqu irfaq bina yow sunu borom yow mu bari yërmande ji teeg noo yërëm bopp nee na ma jege maire bi daal ni ko waaw yow lan la lu xew mu ne ko man sama borom kër daa faatu bàyyi maag ay jirim taw bee dugg biig sunu kër yàqaate xale yi ba lal ba tooy xep wax wax ay wax bañ génn ma xam ne yàlla comme yërmande la moo tax ma di ko ñaan mu yërëm nu nee na bi ma ko ñaanee rek ci la taw bi daal di arrêté ñu delluwaat sunu néeg beneen riwaay bi moom dani nee na benn jigéen la ci jaamukatu yàlla yi nee na bi ma déggee muy wax loolu ma daal di yëkkati benn mbuus bu def xaalis ni ko man la Hamad ibn Salama am jëlal lii nga dimbali kooko mu ni ko sa loolu ngay joxe sa xaalis boobu ngay joxe laa bëgg nga téye ko laa wax man ki may ñaan moo la ëppale allahu akbar xoola ko toll ci jafe-jafe ba toll foofu ñu gaaral la mbuus ak alal goo xam ne ñaanoo ko sarxuwoo ko yàlla moo la ko andil kooku mënoon naa jël te lii wërsëgu yàlla la moo ko andi te loolu day nekk dëgg waaye mu ne ko yóbbul ki may ñaan moo la ëppale xamoon naa ni yàlla nii lay def yàlla xamoon naa ni su ma ko ñaanee tem tem tem mu daal di indi benn waay boo xam daf may jañax mbirum àddina te man dara àddina bëgguma ko yàlla buntu bi sa buntu bii ma taxaw du ma fi jóge sa mbir laa soxla waaye soxlawu ma mbiri nit ñi loola nag ab tolluwaay la am na ñoo xam ne boo leen ko waxee rek mbir mi da leen di jaaxal waaye nekkut luy jaaxale ndax nit ki fam toll boromam rek fa lay waxee fa lay jëfee benn waaye ngi nii boo xam ni dafa jaxase woon Busri ibn Saïd ak benn buur bu ñuy wax Abdul Malik ibn Marwan ni ko Abdul Malik daal bu toogee fii da leen di signal ak a kaf waaye bu weetee yéen lay xas yéen waa nguur gi Walid ibn Abdul Malik yónnee ca Busru daal di koy woolu ba mu ñëw mu ne ko yow dégg naa ni boo weetee yaa ñuy xas di ñu waxal lu bon mu ne ko kan moo wax loolu mu ne ko waa ji moo ko wax mi ngi nii taxaw Busru daal di siggi xool ko waa ji xool ko fekk da koo sosal mu ne yow sunu borom su fekkee lii mu ma wax maa ko wax lu yay ci man nañ ma ko def waaye su fekkee lii ma wax du dëgg wan ma benn kéemaan léegi ma gis ko yow sunu borom ngir ñu xam nit ñëpp xam ne lii du dëgg fasaasa rek waa ji jékki-jékki rek mel ni kuy say tëdd di maanaam xar buñ ko rey pare noonu muy fuddatoo di wéq tànk yi nee na waa ji foofu la nekk di wéq di wéq di wéq ba sedd guy dee ca saasa loolu mooy ñaan ak ku ñu tooñ te loolu mi ngi am ba tey jii naa ci leeral lenn balaa may jeexal wa kadalika ci mbirum nangu ñaan ci ña nga xamante ni ñoo jiitu woon borom bi subhanahu wa taala def na benn bis xajaaj ibn yusuf dafa jàpp benn waay bi mu ko jàppee mu daal di koy indi pour ray ko bi mu ko indee pour ray ko waa ji daal di koy ñaan ni ko waa léegi d'accord naa nga rem waaye mayoo ba suba ma gën a waajas di ko waat jekk di ko dajeeg sama borom xajaaj di ko loolu koy mën naa ko comme ray ray la rek bu subaa nga dee benn yoon waa ji bi mu biñ ko bàyyee muy dem mi ngi wax na ne asa farajun yati bihi llahu innahu lahu kulla yawmin fi xaliqatihi sha'nun amaan na sax maa ngi am espoir ba léegi ni sunu borom mën na indi ndimbalam ndax moom kat bis bu nekk ma nga ci ay mbir xajaaj dégg wax jooju wax ji daw yaramam rek mu ni woo leen ma waa ji mu ñëw mu ne ko yaa wax loolu mu ne ko mu ne ko baal naal demal sa yoon fekk ñaan gam doon ñaan ndax loolu ñaan la maa ngi am yaakaar ndimbalu sunu borom laa shakka ñaan la Waddaah ibn Xaytuma nee na ci jamonoy Omar ibn Abdul Aziz daf maa joxoon ndigal ni ma demal nga génne waa Kasaba ñoom ñëpp nee na ma ñëw di leen génne ba mu des Yazid ibn Abi Muslim ma ne ko yow moom doo génn amaana xëy na daa am lu mu ko eenaloon nee na ba Omar ibn Abdul Aziz faatoo Yazid ibn Abi Muslim nag nekk gouverneur ab benn dëkk hii ma ni tey rek laay dee nag nee na ma daw làqatu ji ndeke waa ji mi ngi koy wër pour rey ko nee na mu di ko wër di ko wër di ko wër ba ni ko ciix jàpp nee na bi mu ko jàppee mu ne ko yàgg naa ñaan yàlla mu dimbali ma ba ma jàpp la waa ji ni ko may yàgg naa ñaan yàlla mu musal ma ci yow mu ne ko tey de yàlla du la musal ci man malakul mawti bu ñëwoon di ma xëccoog yow sax dinaa ko jiitu wala jooju wax xam nga jooju wax amutub yar nee na ñu daal di koy jàpp yeew ko bam ni ngodd teg ko ci rayukaay ba dara di su lu dul ray noddukat bi daal di nodd jàkka ja nodd bi jàkka ji noddee mu ni garaaw nan dem julli ji ba noppi doog koy rey gis nga moom mi ko waajoon rek te naa ko bu malakal mawti ñëwoon sax ma jiitu la bi mu kàbbaaree bay rukkoo rek fekk gars yi dañoo bëggoon def benn coup d'état soldat si dañoo bëggoon def coup d'état yàgg koo waaj jékkut ñu bett ko fa muy sujjootee rek da dabbox ko ay xeej ba foofa la deeyee moom nee na man moom ba mu deeyee ba ma yëg ni dee na rek man fañ ma seene man yeewu ma fa ma doon waaja dee te xam nga bu ñu lay waaja dañuy takk ba nga dëgër dugal la ci saalu benn der boo xam ne comme kuñ dugal ci saako pour boo dee boo buñ la daggee sa baat bi deret ji tuuru foofu doo taqal kenn nee na man ma taxaw di xaar rek tey reetaan rek xam naa yàgg-yàgg dañ may tekki moom ma ne sama ñaan gi nangu na ndax moom nee na ko yàgg naa ñaan yàlla mu musal ma ci yow kenn ko yàgg naa ñaan yàlla jàpp la dëgg la ñoom ñaan ñëpp seen ñaan nangu na waaye kii daa yaree di ko ndax kii yàgg naa ñaan yàlla jàpp ko jàpp na ko kee yàgg naa ñaan yàlla musal ko ci moom dëgg la jàpp nañ ko waaye mucc na waaye kii ma wax loolu moom mi naa ko malakul mawti bu ñëwoon sax di xëccoog man dinaa ko jiitu loola ñàkk bi yar la kon yooyu ak yu ni mel yu bare bare la yoo xam doon na am ca jamonoy salafu saalih baqi ibnu muxallid benn borom xam-xam bu mag la woon da doon jàngale xam-xamu xadiis benn bis benn meer daal di ñëw fekk ko ci waxtu ngoon muy jàngale mu ni ko man day benn doom bu góor laa am sunu kër matul sax parcelle demi parcelle la dafa xat lool boo ko jaayoon sax amaluma njariñ sama doom xamatuma ci lu mu nekk xaw ma dañ kaa jàpp xaw ma nekk doom ji benn yéefar buur moo ko jàpp takk ko ay chaîne léegi mu koy servi di ko liggéeyal Baqi ibn Muxallid daal di arrêté jàngale mi ñaanal ko yàlla ba noppi ndaw sa dem nee na ñu toog ab diir rek maire bi daal di ñëwaat ànd ak xale bi fekk xale bi indaale na ay ay ay xarak ay bëyeeg ay mbir yu bari yoo xam gañe na ko bi mu yegsee muy gërëm si Baqi ibn Muxallid mu ni ko yow de maa ngi lay gërëm maa ngi lay ñaanal wax ko ay wax yu bare bare ni ko yow kat yaa ngi fàttaliku yaa ma ñaanaloon bi sàngam ba tax sama doom ji ñu bàyyi ko na la nettali mi ngi nii ndeke xale bi nettali na ko maire bi ndekete xale bi nee na waxtu wi tombeek Baqi ibn Muxallid di ñaan ci même heure bi nga xam ne ñaan ci saasa mu nangu ci saasa nee na dañoo ànd ñu jiital jëm ca tool ya ponkalum seen giñ ko yeewee seen gi jékki-jékki ni tappit dagg loolu moom ku muus da nga xam dug neen ndax seen ku yorul matériel sax mun yor matériel sax du tàggan da nga koy dagg mu yomb noonu nee na ki doon gardien daal di wax ni kii moo ko tey moo ñu jàpp ma caw ma cawa caw ba may waaj a dem àllaaxira ñu daal di woowaat tëgg bi mu ñëw suudewaat ko bi mu ko suudee ñu dox ñaari jéego seen gi ni waat tappit dagg benn waaye mu ne ah lii nag dug neen kawe ñu xool ñu woo labbe yi nekk foofu laaj leen benn labbe ñëw ni ko waaw yow sa baay ak sa yaay kan mooy dund mu ne ko sama yaay mi ngi dund labbe bi ni buur bi kii bàyyi ko mu dem kii boo ko fi téye da lay gën a sonal kii ñaanuk yaay moo ko topp nee na ñu daal di may bàyyi ma génn dem bi muy dem mi ngi àndal ak ay xarak ay bëy ak ay gis nga ñaanuk way jur moo ko topp amaana léegi tey lan lan daloon ci bind bi passé dalaat ñu tey mooy lan mooy kenn ci ñun amaana muy man muy yéen mi ngi naan ah waa loolu di moom am na sax waaye nag ñun moom est-ce que lii mën nañ ko ahan kay ba tey mi ngi am yéen a ngi fàttaliku dars bi passé bi muy jeex jox naa leen ay misaal yoo xam ne ci nit ñiy dund ak yow la dëgg la am na ca ñoo xam ne ña ngay góorgóorlu di jéem a sellal ba bëgguñu seen yëf siiw moo tax même buñ la ko nettalee yow it da nga leen di sàmmal loola ba boo koy nettaliwaat nga sànni ko ci jaww ji nit ñi jariñoo ko xam ni dëgg la jamono bii la te nag sax nag yi ci ëpp yi ci ëpp nag boo la doon wër soriwuñ la amaana soriwuñu région yi nga nekk amaana sax ñu nekk région de Dakar bi nga nekk ci misaal ñoo xam ne tey bu ñu la woon kii kat diwa mu dib góor mbaa ab jigéen mbaa gone mbaa da nga naan déedéet loolu kay amut fekk ahan kay mi ngi am ba tey li wolof yi naan tey la waalo gën a aay ñaan mu nangu benn waaye ngi nii kii may nettali yii may nettali yépp nag yu nu xam la nag daa dugg ci biir jàkka ji julli tàkkusaan ba nopp génn xool fekk dàll yu rafet la jëndoon ñu sàcc dàll yi mu xool xool xool gisut mu xam ne dañ koo sàcc mu duggaat ci biir jàkka ji julli ñaari ràkka ñaan yàlla ñaanal yàlla ka ko sàccoon bi mu jullee ñaari ràkka bay génn rek seen benn waay buy ñëw ŋàpp dàll yi ci loxo mi ngi soox tànk bi ndeke waa ji dafa sol dàll yi dem tuuti rek pont jam ko mi ngi deret jaa ngi cax-caxi bi mu yegsee mu ne ko waaye yow sa waay lii mooy lan sa nosa li nga yóbbu nag mu ne ko jéggal ma rek mu ne ko léegi wax ma lu xew ak lu la dal mu ne ko déedéet yooyu yëpp mu jërul dama laa ñaan ngir yàlla say daal nga doon seet mi ngi nii jéggal ma ma dem sama yoon pont ma ma jam foofu laa mën a yem lii may wax nii ci jamono bi ngeen di dund la yéen ñii beneen waaye ngi boo xam ni ci ñaanal way juram da ciy def tawassul fonk way juram da ci def tawasul problème bu mu mën a nekk rek bu ci ñaanee suñu borom may ko xam ngeen yéen a ngi fàttaliku benn xissa bu yonentu doon nettali sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na ki gën ci taabi'uun yi benn waaye bu ñuy wax Uways al-Qarani la su ngeen ko gisee na ngeen dem Omar boo ko gisee mu ne naa mu ne ko demal mu jéggalu la say bàkkaar xam ngeen ni genn wàllu Omar sax moo gën Uways waaye yonent bi ni Omar demal mu jéggalu la say bàkkaar xissa bu gudd la waaye pour gàttale Omar di ko wër di ko wër ba gis ko mu ne ko yaay Uways mu ne ko waaw Omar ni ko jéggalul ma samay bàkkaar mu ne ko xanaa du yaay Omar amirul mumin mu ne ko waaw waaw mu ne ko yee sa yoon néew ci loolu jéggalul ma rek ndax yonent bi moo ma ko waxoon te gëm naa la mu wax ba mu ko jéggaloo pare mu ne ko waaw yow léegi lan moo tax nekkoo saxaaba te dund ko ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko man day sama wayjur wu jigéen rek laa doon dundal bët yi neexut tànk yi neexut te mënoon naa ko faa bàyyi ñëw seet si yonent bi ci Madina kon su boobaa danaa nekk saxaaba waaye su ma ko defoon sama yaay dana tumuranke te bëgguma sama yaay tumuranke moo tax keroog bi muy faatu gërëm na ma yonent bi Omar ni ko yow kay ndekete sa ak wayjur moo la may li nga am gis nga histoire bu gudd la maa ko tënk noonu li ma soxloon mooy gis ngeen nangu ñaanu wayjur lam ko may ku dem ba nan la nga Omar na la jéggalul xam nga ne yow moom kawe nga lool waa ji nee na ca loola ak fonk gum fonk wayjuram jafe-jafe bu mas a am nit li ay mbir yoo xam ni saa bu jullee jéggalu boromam ñaan def tawassul ci fonk gi mu fonk way juróom ñaanal ko rek ci saasa sunu borom da koy wërsëgal lii ma nekk léegi ci jamono bii ngeen di dund la xam nga daa am yoo xam ni boo waxoon ba ni diw moom dana gën a nekk kéemaan ndax amaana mu nekk sax ñoo xam bu ko ñëpp xamut ñenn ñi danañ ko xam waaye nag mbir yi dari loo xam ni àddina la dund gi jeexagut woroo ngi fi gis sa bopp a ngi fi ak nit ñi di la ko xoolee mbaa ba nga yàqule moo tax nañ ko sànni ci kaw asamaan si rek ngeen capté ko te xam ne ci seen jamono jii la benn waaye ngi nii daa nekk këram mu am jafe-jafe mu am jafe-jafe jafe-jafe ju bett sax xelam ni waaw téemaa dem ci diw ma leb ko mu lebal ma ba mu yàgg mu ne man de wax dëgg yàlla diw moom dama ko rus man daal rus naa ko daal naa naa bàyyi noonu rek fa mu toogee ba mu yàgg rek diw mooma daal ni janeet ci kanamam ci loo xam ni distance bu soree kenn foogu ko waa ji mooy nettali mu ni ma daal di toog ba mu yàgg ma waxtaan ak moom ba waa ji jóg di ñibbi daal di yëkkati benn enveloppe bu def xaalis waa ji mooy nettali de mu ni bi mu ubbee enveloppe bi cent mille la ci fekk waa ji may ko ko te xelam daa nekkoon ci waa ji naa dem ma lebi ko léegi rus moo tax lebiwu ko mu bàyyi far yëf ya nangu na te ba léegi soxlaam waxu ko beneen waaye ngi boo xam ni moom jigéen la jigéen la ju doyoon waar sax joo xam ne lam daan sol ak lam daan def dem na ba yegg sax moom fecckat la woon faf ndaw si mooy nettali balaa moo xam sunna nee na bi loolu amee benn bis am menn mbokk moo xam ni da kaa yëg ñëw këram ci waxtu guddi di ko waar xam nga mbokk yeeg ni ñu jàmbaare rek macha allah nga xam daawa moom léegi la daawa bi commencé taxaw waaye bu njëkkoon moom saa boo déggaan ni daanaka musicien sangam sax ñeme ngaa dem nga waari ko. waa ji ñëw ci kër ndaw si ñu jaxase ko ndaw si mu toog ak moom di ko waar di ko fàttali di ko waar di ko fàttali di ko delloo ci yàlla ba xolu ndaw si tooy ndaw si mooy nettali de. ndaw si nee na bi waa ji jógee ñibbi ma daal ni ah man dafa mel ni yàlla bëgg na ma gis nga kii ni ma ko gisee nitu yàlla la may nurool ndaw si nee na ma bàyyi ba guddi mu sangu set julli ñaari ràkka tuubal yàlla bàkkaar yi mu doon def ba noppi daal di muuru ndaw see nettali de muuru nee na bi mu muuroo mu tàllal ay loxoom yàlla mu ne yow sunu borom xam nga ne man amaguma jëkkër te kii nii ma gis nii jàpp naa ni kii moom bu fekkee ku gën la ci man am naa ci yaakaar yàlla nag man ko may mu nekk sama borom kër bi mu ko waxee ay fan la ci teg rek mbokk mi daal di ñëw ni ko boo bëggee ma takk la mu daal di koy takk kon ñaanam nangu na misaal yu bare bare bari yoo xam ni boo ko doon nettali daanaka du jeex ci jamono bii ñu toll comme lii ngay gis nii waajoo xam ni feebar na feebar ba sonn jaaxle lu ne mu def ko mu talal ay loxoom ñaan yàlla subhanahu wa taala sunu borom may ko jigéen joo xam ni toog na biir amut doom ndeysaan mu amuk jaaxle ñaan boromam subhanahu wa taala ba jooyal yàlla ci sujud ah sunu borom daal di koy wan ci nelaw mu gént mu gént am doom ah doom bi nekk doom bu góor te effectivement loola ba muy wax ba muy gént loola amagut yàlla wërsëgal ko mu am doom bu góor ak yeneen ak yeneen ak yeneen koo xamante ni ki ñii ci feebar ñii ci ña numturati ñu tooñ la ñii ci aajo joo am ci mbiru àddina yooyu lijjanti ñii ku la tuumaal ñii ku la waxal musiba ah façon yi yi ma doon lim yëpp bu ma toppoon waxtu dama ci ju bari li gën a kéemaan nag mooy yi ma mujjee nettali yëpp nag ci jamono bii ngeen di dund la jamono bii ngeen di dund nga xam ni yéen a ngi koy dund amaan nañ yii ma lim ñim gaar ñëpp suñ ko waxoon ni diw ak diw ak diw ak diw ak diw la gëm naa ni bu ko ñëpp dul xamit moom dina am ñoo xamit danañ xam ñenn ca ñoom bu ñu xamul ñëpp loolu nag li tax ma jeexalee ko mooy ñu gën a am courage ci sunu borom gën a am gëm-gëm ni ñaan ma nga fam nekkoon ba tey nit kaa ngi toroxlul boromam di ko ñaan sunu borom may ko tomb bi may jeexalee mooy boo bëggee yàlla nangu sa ñaan jëlal buum nga nga fas ko ca fa ma tàmbalee woon keroog ya ma doon wax cat laa ngi nii nga fasaat ko gis nga saa boo dof dof loo ba li ngay lekk lewut baaxut yow moom teelal a toog fële ca gannaaw moom doo ñaan mu nangu sa làmmiñ bi ngay ñaanee yàlla bu dee chaque jour yaa ngi ko dëkkal ci tuumaal nit ñeeg di leen waxal ak di leen jëw ak di leen fenal ak di jaxase ay nit ak ah nga xam ni yow daanaka nitu fit nga na nga lu la neex rek li lay neex mooy nit ñi nañu xuloo diw ak diw nan jàppante diw ak diw buñ déggoo maanaam daal dafa mel ni yow loolu mooy dundal sa deret jàppal ni yow moom ba nga toog fee ca gannaaw boo ñaanee yàlla du ko nangu su fekkente ni booy ñaan doo concentré wu ci li ngay ñaan sa xel lu nekk ma nga ca toogal fële jàppal ni yow yàlla subhanahu wa ta'ala du nangu sa ñaan su fekkee li nga gàddu ci ay àqi jàmbur daa bari ba nit ñi di la móolu di la su booxun toogal fee xamal ne yow sa ñaan du nangu ñeenta ngoog wa illaa boog nga fexe ba foo toll ngay jéggalul sa boroom subhanahu wa taala kooku sabay na sababu nangu ñaan la boog bàyyi ba xaaji guddi waxtu woo xam ne suuf sedd na man wala yow yàlla lëndëm gi nga jug tàllal say loxo toroxlul sa borom jooyal yàlla ci kaw boo ko mënee wax say aajo maanaam yàlla gis ngeen li dof bi waxoon sànq saadul wala kiñ naan dof bi mu ne yàlla yow léegi boo tawee boo tawalee nit ñi léegi taw bi day wàññi ci li nga yore woon dara du ko wàññi dara di ah boo leen tawalul day mel ni kon da nga amut loo leen tawale te am nga koy suñu borom tawalal nit ñi mu daal taw effectivement yàlla lim lay jox ah wàññiwut dara ci ak nguuram wàññiwut dara ci nguuram loola kay ak yokkute lay gën a dolli tafaddulan wa minna moom sunu borom subhanahu wa taala kon mbokk yi bakkaar yi bari na aajo yi bari na feebar yi bari na soxla yi bari na sellalal sa xol te gëg yëg ni yàlla rek kese moom dong képp mooy ki am mooy ki man mooy ki lay wërsëgal bis boo gëmee loolu nga am fulla ju doy ne aaja jooy ñaan sa borom yàlla nga koy ñaan subhanahu wa taala ah sawfa tara min ayati rabbina al kubra ci kéemaani sunu borom yii ñu doon nettali teg waxuma la amoon na fi mi ngi am ba tey waaye dama ni fii ba addina bi tukki fii ak ay nit yuy wéetal yàlla ñu ngi ci kaw suuf ku ci am aaja mu ñaan sunu borom jaar ca jaarukaay ba sunu borom dana la tijjil bunt may la nu ngi ñaan sunu borom ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi yàlla bu nu sunu borom boole ci ñi nga xam daf leen di xañ ci ay xéewalam wala mu di leen dàq ci ay yërmandeem yàlla na borom bi subhanahu wa ta'ala dimbale ñu ba lépp loo xam ne mooy gàkkal nit ba bu ñaanee sunu borom du ko nangu sunu borom musal nu ci lépp luy sellal nit ki ba su ñaanee sunu borom nangul ko yàlla na sunu borom dimbale ñu ci fitna yi àddina ak fitna yi àllaaxira yi nga xam ni mat naa fitnaal nit ba delloo ko ci ngëmam gannaaw yàlla na suñu borom musal nu ci lépp loo xam ne ñu ngi koy def mu di yiw borom bi nangul nu ko te fulal nu ko lu di safaan mu jéggal nu ko wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain